xam naa ne euh, alaaj mm. euh, tëj gi ñu nasaraan yi tëj fii mm. Mm. war nañoo yee ci lu baree baree bari war nañoo yee ci lu baree baree bari boo déggee war nañoo nag ñoo jooju nekkul ñun ñi nga xam ne ñoo nekk le bas peuple waaye suñu autorité yi alaaj mm-hmm. kilifa yi fort yi nga xam ne ñoom lañ dénk réew mi lii bu leen yeewulee dara dootu leen yee gis nga Chine ba mbir ma ne fa mbëlëj mbàcc gis nga hôpital bu ngand boobu nga xam ne daanaka xaw naa toll ni dëkk ñu tabaxu ca saasa ca saasa loolu ñoom feebar ba loolu la leen jàngal ñoom mm-hmm. demal seen bopp ca saasa gaaw gaaw gaaw lu ko mooy ñu jeex ak li ñuy nangoo bari yëpp ndax lii di lekk ci ñin ay junni junni par bis alaaji ñoom ña ngay gaawal tabax gaaw dégg mm-hmm. ci lu mooy weer ab hôpital woo xam ne nit ñi dinañ fa dugg te ba pare mu nekk hôpital woo xam ne amul ci réew mi xamoon nañoo mënoon daaj def ay abri provisoire hmm. ne nañ leen gaaw buux nit ñu ci suuf suufu escalier yi déedéet hmm. niveau yu mag yu fort yu raw seen hôpitaux ya fa nekkoon def ci boo xam ne nag na mu toll boo pakkatee hôpital yëpp tolluñu noonu. gaaw lool ak personnel bu noppi. waaw laaj loolu loolooy jàmbaar loolu mooy dara dal la nga jëlee ci leçon. Hmm. ñun suñu kilifa yi nga xam ni ku sëqat dem bitim réew. ku mm-hmm. grippé alaaji. Mm-hmm. grippé sa yaram xaw a tàng nga mel ni kuy tisalee ka sëqat. ne man suba il faut que j'aille voir mon médecin. à Marseille à Paris damay dem Monaco. léegi suba il faut que j'aille en en Suisse ah. ma ba frontière yi tëjoo nga am problème. merci léegi nag mënuñoo dem ñu ngi ni xéem ci réew mi. ñi gën a fort ci kaw dootuñ jël risque toog ak ay nit conseil de ministres amatul xoolante leen ci télévision yi julli ji doo dem tabaski benn risque doo ko jël doo dem doo génn tubaab yi nee nañ la seen espace ngeen bi yéen dootu loo leen fi dugg génnee nañu Algérie ci list rouge bi waaye yéen Ndakaaru toog leen fii doo leen fi dugg yéen déggoo ma de. mënagu leen a génn. waaw kay waay tant que mënuñu gën a génn nag ngir dem faji suñu euh, sibiru yeeg sëqat seeg ngas geeg feebar yu ndaw yoo xam ne alaaj dañ koo jàppee yu ndaw ñoom moom la ñuy dem bitim réew yu mag a mag yi moom waxaalewu ma seen mbir léegi nag ñoom ñëpp ñu ngi toog lii alaaji bu leen yeewu lan moo leen di yee dégg nga au moment où yow boo sëqatoon dem bitim réew nit kaa ngi am jabet mhm. nit kaa ngi am cancer nit kaa ngi nekk ab insuffisant rénal mënul mënul mënul mënul mënul dem moom mi ngi toog dégg nga loolu. Mhm. ñii ñi ngi am jàngoro yu doomu Sida gi. dem ba demina leen leen ñooñu noonu ñëpp alaaji. Mhm. ak hépatite bi nga xam ni mi ngi tukkil àdduna. keroog dégg nga fi lu fi docteur bi wax askan wi téeméer boo jël juróom-ñeent ya dañ caa am bu chronique bi. demee mhm. de presse naa koy semaine dernière. askan wi alaaji askan wi lañ wax. téeméer boo jël juróom-ñeent ya waaw ña ngi ca am hépatite B bi bu chronique bi toogaale ak bañ na du wér singali leen alaa ñooñu mënatuñoo dem hôpital mm, mm, mm. ndax corona ji alaa ñi cancer mënatuñoo dem hôpital ndax corona ji sibiru bi ñuy xeeb nga xam ne li muy rey corona gi reyul genn wàlla taataan gi alaaji ren defaluñ ko sax campagne ren defaluñ ko sax campagne mm-hmm. dégg nga loolu euh, ñii di wasin mm-hmm. di ci dee nga xam ne at bu ne ñu ci ñu ci ñu ci eh, eh, eh, adduna di ci rey boppam OMS di ci ray boppam alaaj léegi tuy préfère sax wasine ci biir kër yi nga wut gaaw ab saa sam boo bokkal koñ wala rawale mu ñëw fekk sa la sa biir kër tuy préfère di dem hôpital ndax ragal hôpital yi dégg nga subhanallah ndax corona yi doon defi planning ay njur day ñu ñu non man kay. planning googu sax est ce que nekkul li gën a li gën a ndaw sax ci wuti kër docteur. déggoo OMS alerté na ci keroog planning bi. nee na oh. gars dañ koy xeeb mais après mën na jur loo xam ne fii ak un an. waaye ma planning bi sax yow fii ak un ngay wax. Mhm. waaye ñii mën a tudda léegi. Mhm. ñii faatu. ci ah alaaji. Mhm. insuffisance rénale gii. cancer gii. diabète bi sibiru bii. sibiru bi alaaji xam nga le nom sibiru. Uh-huh. sénégalais ñoo ko xeeb. Uh-huh. Uh-huh. pali. pali bi. pali bi ak xiif ñoo yem. pali bi alaaji. ak xiif ñoo su ñu la waxee ne la wàllum xiif dana rey juróom junni doomu aadama par bis. xanaa xiif gi xiif gee gën a garaaw corona ji. xiif bi. cor corona gee ko xiif gee ko gën a gën a doy waar alaaji. ay junni junni lay rey par waaw te ñu bëree bëree bari bàyyiwuñ ci xel. Sénégal alaaji sa bopp bu mu ñu ne la ah xam naa daa sibiru rek jëlal li ngoom ji nga jaxase kook fekk sibiru jooju la muy rey corona ji reyu ko waaye instant bi taluñu dara. Hmm. gars yi kenn ñemeetul dem hôpital ku nekk yaa ngi naan bu ma demee maare détaillé. waaw ñu nga feebar toog seen kër. amuñu infrastructure <laughs> sanitaire lii daa ruslu kilifa yi nga xam ne buñ feebaroon nag dem. dem bitim réew dem fajo ji ñàkk pexe pexe la léegi nag mënatul fii fii fii par fii fii fii fii fii fii léegi nag bu corona ji jeexoon yàlla ko yàlla dogal mu jeex fii fii joojoo war a continuer alaaji jamonoy corona ji man président de la république toog naa lu mat ñeenti weer fajuma bitim réew te deewuma dégg nga loolu kon lay continuer boo ne da ngay doo mënoo bàyyi tuxum cigarette alaaji ba koor gi ñëw boo ci profité wulee ba yow la neex toute mm-hmm. une journée ngay toog doo pexe dina ci am de waaye. Ah. <laughs> nag ah. compliqué na de. ñoo dem comme que ñoom it lii rek moom moo leen neex yii sax bu ñu ñëwee ñun africains yi au lieu mu yeeñu waaye dañ cey profité alaaji ñu ngi cey dóor marché boo dégg dana am gré à dana am tappale ceeb bi ni ñu ko séddalee. milliards yi matériel médical bi nga xam ne dañu koo jënd coow laa nga mel ni tulleeg male au niveau du ministère ñan lañ ko attribué ñan lañ ko jox marché yaa ma neex rek yow en pleine covid ngay liggéenti ay gouvernement union national mel ni yow loolu yow gouver gouvernement union national kay yemale ko ca ministère de la santé gouvernement union nationale guddiñ toon lu ñu koy doyee réew mi nekkul ci impasse geeruñu yàlla tere xiif goo xam ne dugg fee dugg dugg dugg dugg ba fi mu nekk nii maa di daali alaaji eh. nit ñaa ngi reyante seen biir di lekkante lekk nit ah? nit ña wàccuñ ca mbedd ma eh. ne la jóge yow di nga génn pale bi di nga dem eh. nga naan ay ay ay ay damay dugal ay yow société civile ku la fat nga woo ne ko ñëwal dugg ci gouvernement union nationale journaliste bu la fat yaa ngay woo ngir mu ñëw far ci yow yàlla ci boppam moo leen gën a fort te ñëpp am nañoo moom. amul amul. amul unanimité. na ñuy wax ne yàlla ji amul. diine jaa ngi nii ñii dañoo far fii ñii far fa ca des. voilà unanimité da amul fen ah yow nga ne dee il faut ñëpp ñëw ànd ak yow pour critique yeeg yii ne yëpp société civile li mu Ndiaye Cissé wax loolu mooy dëgg société civile alaaji place am ci biti la di alerte opposition place ci biti la di critiquer. positivement waxuñu waxuñu waxuñu mu nekk ab opposition nihiliste dégg nga pouvoir rôlam mooy mu gouverner yow yaa ngi ay nit yor coalition boo xam ne la fa nekk ci ay parti plus de cent cinquante parti ak mouvement nga ne yow ñaar fukk ak juróomi boroomi xam-xam yoo tànn boole koog ay universitaire ay technocrate alaaji nga ne dalaa nga ne dalaa të boo fi defee gouvernement union nationale nit ñi xam ne gouvernement de deal la gouvernement da yaama neex la guvernement da gars yi nañ leen tëj seen làmmiñ yi xëcc journaliste dugal ci biir gouvernement xëcc société civile dugal ci gouvernement xëcc opposant dugal ci gouvernement mel ni yow réew mi daa toll foo xamante ni bu ñu poussé tuuti wàcc ca kàmb ga ba benn opposant opposant bu fi dem ci gouvernement bi transhumant nga nañ la contenu transhumant société civile bu fa dem tappalekan nga looy toog ngeen alerte yow nit ñi nit ñi nit ñi alaaji ñi nelawul nit nelawuñu nit ñi nelawuñu nañu xool tamit waxin gi lu yàqu bu réew dañ leen ko wax fii lépp lañ fi wax présenté wu na babaalu na mooy Mamatar Gueye dégg nga Elimane ñu gàggante ko yàqul julli dégg baalu nag jàll na mais alaaji am na yoo xam ne nee nañ ko wax te dee am na yoo xam ne waxuwul dégg nga ay nit mënuñoo jouer ab film nit tudd ca nangam nga naan dafa waroon a tudd turu turu turu nangam turu turu kuñ bokkalul diine ab turu chrétien yow fii am fi ay chrétien yoo xam ne ñu gën xol ñenn ñoo xam ne nee na ñu yaay ay jurit lañ gën leen xol fop waaye yow nga naan la loolu am ci réew mi ay ay julit julit julit julit alaaji julit julit nekkul tur kese. c'est que dañoo war di tey ci. c'est le cœur. dañoo war di tey ci œuvre jàmbur. ah non mais critiquer guddi bëccëg suba ngoon ku sëqal nga critiquer ku critiquer œuvre jàmbur. vingt millions de bouteilles de vin alaaji. waaw ci at mi xoolal la jaay ci mim réew. Sénégal gii dégg nga ma léegi laa dem si si si Google bi. Oh, dem si reportage su RFI bi vingt million ci ay butéelu sangara. ci réew moo xam ne nee ñu téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ak juróom wala lu ko ëpp plus de quatre-vingt-quinze pour cent ay jullit lañ ñan ñoo naan sangara si. te yow nga ne yow sa diine dafa tere sangara. demal tribunal nga fekkee àtte bi demal flagrant délit sàcc yu mag yi. Uh-huh. demal luubal këtu bien yi ba ci suñ gouvernement yi suñ gouvernement yi alaaji xoolal ñi ngi wax ne bokk ñoo ñoom diine ak ñin. nga xool tajakat yu mag yi seen tur yi la. nu ñu tudd. nu ñu tudd suñu tur yi ñooy ne ca kaw. Hmm. ba ci àndandoo sax taaxale nii ñi ngay àndal nii ami d'enfance seetlul ñëw ñi nga wax ne yow ak ñoom yéen a bokku diine. ak ñi nga xam ne bokkuñu diine ñan ñoo gën a sincère. Hmm. ñan ñoo gën a dëggu. ñan ñoo ci ñoo xam ne bu ñu la waxee matt du dañ. wala lu ñu la wax ren bu dewee déwénee fa la ñuy ne. li sëñ Abdoulaye waxoon. am nañu way wu rafet képp koo xam ne say kàddu yi démb daa méngoog say jëfi tey jàppal sa mbokk nga. Mm-hmm. waaye koo xam ne ay kàddu yu démbam daa safaanoo ak jëfi teyam jàppal. Mm-hmm. waaye loolu ñen ñoo ko fiy gën a def alaaji. Mm-hmm. nekkul ne man ay dara damaa nekk julit nekk sëtu yonent rek ba tax ma bëgg man euh, lu neex laa maas ngay wax loo xam ne koo dégg sax dina xam ne Ahmed mi li muy wax dara nekk ci dëgg. yenn wul maanaa nañu waxante dëgg. dañ leen waxante dëgg et puis xul yaayul kaafiru ko jàng ku nekk maandu te dugg na. dëgg loolu dëgg sama boppam dem nañ ba nekk ci am xat dafa wax àndandoom yi ne leen dem leen albisimi te du mooy Éthiopie tey bi. waaw ab buuram fa xam ne chrétien la lépp lu xeetoo ak wàllum injustice daf koy xeex. kumba am ndey kumba amul ndey amu fa te woowu fekk na moom ay mbokkam ci biir màkk ñi ngi koy bëgg a rey kumba am ndey kumba amul ndey. mu génnee leen fa ñooñu li tasaari islaam bi ci benn côté ci biir Afrique bi buur boo bokk na ca nañ leen mandu ci yëfu jàmbur. ah nañ leen mandu ci yëfu jàmbur. ay ay yëfu jàmbur dafa général ah, du question doomu diine. du diine œuvre jàmbur ni ku jàngi école. Ah, jàngi production ay jàmbur. ba mokkal ñëw investir xaalisam jëlee jële ay employé am jënd ay matériel am ay millions am xamoo da koo leb xamoo da koo ab. xamul fu mu ko jëlee. liggéey benn liggéey di def commerce am. légalement. <laughs> nga ne ko ta façon de faire neexuma. ngeen bàyyi ah, itam. nga sapé diini ji it nag. bu la ji du doone tur bi ñu jox diw. Ah, ci ci ci ci nangam ji neexuma. dëgg yàlla. Ah, diw bi diw diw bi ñu jox diw. ci nangam neexuma. Euh, waroon nañ koo jox baax na ci diw. sa ça c'est quoi ça. non mais attends dëgg nag. ngeen waxante dëgg gars yi dañoo bëgg lu dañu gars yi dañu dañu bëgg gis nga sa fanatisme la moo war a jeex ci réew mi alaaji Sénégal ngay wax sëriñu jàmbur dara dégg nga taalibe mi door la ba nga dee wala wala wala wala taal sa ñu taxaw wax ab yonent nangam jaar fu bon alaaji mhm. te nga ne kooku sa sëriñ moom la yaakaaroon ngeen toog ne nemm ne maaral sarle ngi nii mhm. dëgg loolu dëgg waaw ah, waaye c'est que dañu affaire fanatisme boobu gëm gëm gëm ba fàtte yàlla dimbali nit ñi ah leen bàyyi jàmbur waay ku ci ne maandu daal xam naa ne Ablaye ji day doxal réew di ah baax na maandu day doxalub réew di maandu day doxalu doxalub réew te dëkk bi nag ñëpp benn lañ am na fi ñoo xam ne ay jullit pire mais seeni côté nijaay nii dañuy doon ay chrétien ñii doon ay te dañuy dëkk yonent nee ngeen yéen moom ngeen gëm moo fi gën mooy seen yonent te daf doon laale ak ñoo xam ne bokkul ak ñoom diine ca wàllum commerce ci leneen ak leneen ak wàllu administration ah